asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax di am mbégte di dellusiwaat ci fii nga xamante ni mooy suñu fees ah, gëj nañ fee dugg nag bu ñu fa dugg rek dañ naan tekk ndax ñun lépp luñ jublu ak fu ñu jëm rek dañ koy jëmale ci sëriñ bi jublu ko ci sëriñ bi ah, tey nag daa am lu xew lu rëy loo xamante ni murid yëpp a ci bég murid yëpp a ci kontaan rawatina nag ñun waa Touba Kaolack rawatina ñun waa Touba Ndorong ñi nga xamante ni ñooy waa kër Cheikh Mamadou Bachir suñ boppam taalibe moom Cheikh Mamadou Moustapha saw mi nga xamante ni liggéey bu rëy bi Cheikh Mamadou Mountakha sumb fii ci péncum Kaolack mii fas yéene àggale naalu Serigne Bassirou fas yéene àggale naalu Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Bachir mi nga xam ne moo fi defoon jumaa jooju yi Serigne bi ñëw nag euh, ne da koy toj defar ko waaye toj beeg defar boobe noonu nag Moustapha da cee def lu rëy loo xamante ni jàpp naa ne euh, Touba Ndorong gépp ci war a kontaan te adduna war na koo yëg ndax ba ko bi tàmbalee rek moom daf ne damay daal di tàmbalee lu mat juróom fukki million cinquante million cinquante millions nag borom xol bu rëy rek ko mën a joxe taalibe bi sëñ Tuubaa bu gëm sëñ Tuubaa doyloo sëñ Tuubaa sopp sëñ Tuubaa wóolu sëñ Tuubaa ko a joxe ci ndax ñu ngi doon dégg sax ci wéeru bay am na ñoo xamante ni neewoon nañ ne danañ ko nàngam ak danañ ko nàngam waaye loolu lépp daanaka gisuñ ko ba sëriñ bi jëlal ko boppam kon tey bu ci Moustapha Sow jógee yëkkati cinquante millions dem ba Touba jébbal ko sëriñ bi def ko addi sëñ Touba waaye kooku nag ku baax la kon nañ xam ne ñun taalibe sëñ Touba yi kii li mu bëgg nañ ko ko jox la sëñ Abdou Lahad daa wax nag sëñ Abdou Lahad dane woon Abdou Diouf mii lii mu soxla ci ñun muy carte yi te liggéey bii mu liggéeyal sëñ Touba def na liggéeyal na sëñ Touba defal na sëñ Touba jëfal na sëñ Touba te soxlawul dara ci ñun ci lu dul carte yi kii nag du Abdou Diouf kii suñu mbokkum taalibe la waaye daa jëfal sëriñ Touba daa jëfal waa Touba Ndorong waaye daa jëfal Cheikh Mamadou Mountakha jëfal sëriñ Bassirou Mbacke juróom fukki million la indi kon Kaolack gépp àdduna bépp nañ ko ñaanal sama borom yokk ko defal ko tawfeex joxewu ko sec espèce maanaam liquidité la joxe ba pare na loolu mooy ak tàmbaleem ci liggéeyal Serigne Touba bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha fas yéene defar muy jumaay jumaay Touba Kaolack ji kon ñun waa Kaolack nan futteeku te fas yeneen liggéey ngir jëm yàllaa ak yonent bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah